mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi fii ci jaxaw siin ku wax jaxaw siin nag wax bu siin commando fenn mi nga xamante ni tey moom moo seede woon Serigne Touba ci 7 juin waaye du ñu yem foofu dinañ taxaw ci lu am solo muy képp ku wax buur dina wax ñi muy àndal tey dinañ taxaw ci ñi nga xamante ni tey ñoom la buur siin doon àndal ku mel ni bisik lan mooy bisik ak kan mooy bisik nan lañ koy fale lan mooy rôle yi nga xamante ni moom la bisik doon joué incha allah lool lépp te di ko am fii ci 24 actu incha allah rabbul alamin fii ci jaxaw siin comme ni leen ko waxee woon tey ñi ngi fii ci kër bisik euh, ku wax buur siin wax bisik euh, kon incha allah tey dinañ fa yéene xam kan mooy bisik nan lañ ko doon fale waaye Bissic aussi ci yenn famille laa nekk ak lan mooy rôle bi nga xam ne Bissic doon na ko jouer ci Royal Sim ñu fas yéene ànd ak suñu professeur moom ma Mamadou fay di historien di ku ñu xam ci wàllu taarix mais aussi nekk professeur boo xamante ne aussi ku ñu ràññee ci wàllu ci ak xam-xam professeur maa ngi lay ziar. waaw Bamba maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jaajëfal aussi di la remercier ci dagg ngeen dagg seen yiite yëpp ñoo fekk suñu fi nga xamante ne nii mooy jaxaw capitalu Gelwaar yi Euh, jërëjëf professeur tey ñu nekk fii di euh, kër kër kër euh, bisik lan mooy bisik. waa bisik ndombol tànk la ndombol tànk la ak pal la comme niñ ko mën a waxee suñ jamono ji nomination la boo xamante ne nii ci cour royale bi la bokk bokk ci institution yi doxal nguurug siin waaw. tey bu ñu waxee bisik nan lañ ko daan fale ak ci yan famille lañ ko daan tànnee. waaw loolu de lu neex a tontu la. bisik jaraaf famaak moo koy fal fa famaak mooy jaraaf bu mag waaw ñoo nag ñi ci ëpp ngoom lañ daan sant tey tey jii l'actuel grand jaraaf euh, ngom la sant ndub ngoom la tudd mi ngi dëkk Maroneem kon cosaan boobu moo fi nekk ba tey bisik ni ñuy fale buur ni ñuy fale lingeer ni ñuy fale ba noonu la ñuy fale bisik waaw même place bi lañ leen di fale même porcelaine bi moo leen di fal xëy na rituel yi moo xaw a wute waaw parce que bu ñu la falee ba pare day ñëw installé la fii mooy kër bisik mooy këru cosaan bi mooy fi ñu nekk nii actuel bisik bi sax fii ci biir kër gi garaaju Touré ñu ngi koy nuyu au passage mais daal buñ ko falee Ngelwasi la mooy place ba fële ci place wu biir dëkk bi fee place publique bi bu buñ ko fa falee ba pare defal ko yi ñu koy defal ba pare dañ koy indi fii nag installé ko këram mu def fi benn fête bu mag waaw. dégg naa nga wax ay tur yu bari wax nga buur wax nga jaraaf wax nga wax nga lingeer ak far farba euh, yooyu noonu mooy lan. waaw yooyu ay ndomal tànk la comme bisig rek ñooñu tamit aussi responsabilité lañ yor comme ni bisig yoree responsabilité bisig dafa am rôle am responsabilité buñ ko dénk ci réew mi waaw waaye comme nag ma laajoon ci famille bi ñu koy tànnee famille Touré lañ koy tànnee famille Touré euh, am na nag ay famille yu fi jiitu daan doon mooy ñi sant baabu dañuy gis fi ay séeréer yu sant baabu ñooñu ñooy les premier bisig di siin ñooñu ci jamono ñoxo bàyyi maan ñaan atum 1529 ci lañ jël euh, poste bisig bi. di ko occupé di ko ba atum 1695 ci la ñu sant Touré ñëw post bi euh, nomination bi toxu ci ñoom mais poste bi dafa continuer exister ba tey mais dañoo changé ñi sant baabu ñi sant Touré ñëw jël seen place ci fonction bisik bi. Euh, est-ce que mën nañoo xam kan moo ci njëkk a nekk ñi sant Touré kan moo ko ci njëkk a falu. waaw ñi sant Touré ku ñuy wax Saaburi Touré ku ñuy wax Saaburi Touré jógee woon Saalum àndoon ak famille Amakodou Ndiaye waaw ñoom la wax Kër Makoddu boo déggee Kër Makoddu mooy njaayeen yooyu njaayeen yooyu bi ñuy ñëw fii mook ñi sant Touré ñoo àndoon muy ñaari kilifa yu àndoon waaw kenn ki sant Njaay kenn ki sant Touré ki sant Touré nag moo tuddoon Saaburi Touré kon mën nañoo jàpp ne moom mooy le premier bisik bi sant Touré waaw. moom mooy premier bisik bi sant Touré mooy Saaburi Touré euh, kon gannaaw bi ñu xamee premier bisik bi xam kan mooy bisik li ñuy ñëw kon maanaam lan moo doon rôle bisik fii ci Royal Sine waaw rôle bisik nag dafa xa nekk rôle bu xaw particulier parce que bisik xam nga séeréer bu njëkk ñaan yi mu xamoon mooy ay ñaani sengoor ay euh, ay béjjën yu sox xeet yooyu daal mais bisik nag moom ñaanam dafa xaw a wuuteeg yooyu waaw ñaanam ay xalwatu lay def ay ay alxuraan lay bind ay xaatim lay def moom loolu moo nekkoon rôle kon am na rôle sëriñ ñaanal sëriñ ci biir. maanaam ñoom seen lépp alxuraan la. ñoom ay jullit lañ mos a doon mu ñëw mosuñoo dooni ceddo <laughs> waaw loolu nañu bëri xam nga siin fii nii li ñu li ñu ñuy réere mbir mooy dañoo jàpp ne ak cëriñ amu fi place fekk demewut noonu fii kenn ku nekk am nga liberté exercer religion bu la neex te kenn du la ci wax dara waaw bisik fii la dëkk kër gii musta jaar ci lu dul lislaam atum 1600 ba tey waaw te avant loolu sax ñun am nañ ay buur yoo xam ne ay jullit lañ waaw kon loolu du problème bi problème bi mooy fonction biñ la jox. loolu la ñuy lijjanti ndax dox na wala doxul ndax fees nga sa place walla wala feesoo ko ndax da ngay wor wala doo war ndax ndax mat nga li ñuy xool ci nit ku baax ndax mi ci yow loolu nag amul religion waaw loolu amul religion. maanaam lépp valeur la ci valeur ci lañ delloo lépp li nga xam ne moom lañ daan def ak ak ak ak ak ngor. waaw ñun ci valeur lañuy ñuy nit parce que ki nga xam ne mooy bisik bu fekkoon ne bu ñu ñi di xare ji mu toog këram bu fekkente ne moom tamit aussi mbir mii da cee dugal ay ay piège yoo xam ne day daane buur yooyu yëpp ay xeet la yoo xamante ne ni boo ko defee dañ lay folli waaye li tax ñoom bañ leen falee ba tey musuñ leen a folli buur bu ñëw confirmer leen ci seen pos ngor gi moo loolu ngor moo leen ko may ak xam liñ leen jox nit buñ la joxee responsabilité da nga koy xam danga koy sàmm waaw te sàmm sa ngor nag defe naa loolu moo <laughs> boo ko boo ko mënut moom sa diine daanaka jar nañu xolaat ko. Euh, loolu moo tax bu ñu xoolee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bi bi mu koy tagg lan la ko tagge mooy jikko ji rafet muy wa innaka la ala xuluqil azim Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba daal di koy wax ni xat kaana akmalul wara xalxan wa xan zahara salli alayhi zul wara bi alihi wa sallimi ba tey ñu ñëwaat ci rôle bisik bi nga xam ne wax nga ko donc waxoon nga ni ñoom seen lépp ci Alxuraan lañ ñuy dellu euh, tey rôle yi yan ak yan ak yan la waaw à part euh, rôle boobu am nañu rôle salmakoor rôle salmakoor mooy ñu ñoom ay xarekat lañ waaw ñoom am nañu rôle euh, bu góor ñi dee xare ji ñu jóg ànd ak ñoom loolu seen loolu seen rôle la ci biir. am nañu tamit aussi beneen rôle mooy moom c'est un conseiller spécial du roi. parce que dañoo jàpp ne moom xam na loo xam ne waa réew mi xamuñu ko ci biti. maanaam naar euh, dañoo baaxoo dox ak xam lu bari ak xam fu bari. waaw loolu nag moo taxoon ñu leen daan jox post boobu parce que boo seetloo historique poste bi ci boppam li tax ñu créé ko mhm. loolu la. parce que parce que parce que ñoo ko bàyyi man ñaan bi mu faloo il fallait que mu am ku ko jege koo xam ne dana ko mën a servir de conseil pour mu bañ a dugg ci ay yenn détails yi moo taxoon ñu créel ko poste bi jëli mbokkam mu sant baa bu indi ko. Mhm. Njaay ni tamit comme ñoom ñu sant Touré ñoo ànd ñoom Njaay ni bi ñu jotee ci nguur gi ñu nit pour ñu am conseil spécial bu leen jege. il fallait que ñu jël seen mbokk mi sant Touré def ko bisik mooy kon conseil boobu moom mooy mooy mooy rôle primordial bisik moom c'est un conseil principal waaye nag ci wàllu bitim réew maanaam tey boo ko dee seet mooy euh, le ministre des affaires étrangères maanaam gan ak foo mën a jóge boo ñëwee fii bisik moo lay njëkk a recevoir enquête préliminaire yi moo koy def bu fekkente ne war ngaa gis buur moo lay wutal audience ci buur bu fekkee waroo gis buur aussi yow foofu ngay foo yow yem doo ko gis parce que buur du ñëpp a koy gis waaye nag gan gu fi ñëw moom ganu kilifa la wala ganu lu mu mën a doon euh, boo ñëwee fii danga gis bisik wax ko li ngay dox ak li nga soxla mm-hmm. bu jaree àgg ci buur mu àgg ci buur bu ko jar moom mu set nu mu ko lijjantee waaw mais rulam bu njëkk loolu da cee bokk. Mm-hmm. maanaam mbokk yi ni ngeen ko déggee muy wax ni. képp kuy dox ci kaw suuf war ngaa wut ko lay conseil waaye conseil bu mat conseil conseil boo xam ne da lay wax dëgg te yàlla rek tax conseil bi nga xamante ni tey eh, day xam li muy wax te yàlla rek tax donc loolu am solo la surtout ci jamono ji nga xamante ni maanaam jamono ju lëmbe la jamono joo xam ne laaj na doomu aadama yi indiwaat seen xel laaj na doomu aadama yi delluwaat ci dëgg laaj na doomu aadama yi xam dëgg euh, ko waxee woon maanaam nit ki dina ñëw bu waree gis buur moom moo introduire ko ci buur ba buur xam nan la koy répondre nan la war a doxee teel a teel a waxtaan ak équipe bi nga xamante si tey moom la daan doxalee mais tamit euh, ci wàllu baatin tamit am na beneen rôle bu mu daan joué daana dégg ni tey képp ku fi dugg amoon ay gàllaaj yoo xam ne gàllaaju safaanu la ñoom am na nun daan def ba ba mën koo détecter ba nga xamante ni lépp loo yor ci safaan daawul yegsi loolu looñ ci mën a yokkal waaw xam nga dëkk bi dafa am ku koy surveiller ci baatin ba tey mi ngi fi jaxaaw mm-hmm. dafa am ku koy surveiller ci baatin te kooku kangeer la tudd waa dëkk bi xam nañ ko Kangeer euh, am na sax yoo xam ne mën mënuñu koo wax waaye xam nañ ko ndax amuñu autorisation wax ko mhm. waaye dëkk bi bu jant bu xasee so mhm. am na ñu koy wot ñoo xam ne duñu ay nit waaw waaye nag boo fi naree dugg indi fi safaan euh, boo mu safaan boobu day yàqu wala mu dellu ci sa kaw waaw te tamit ku fi ñëw aussi lu baax rek tax laa jóg mhm. li nga fi wut di nga ko am ndax loolu moom dañ ci am firnde yu leer ndax garmi yu bari ñu daan wut nguur mu te leen fii la ñëw Garmo yi ñu leen menacé de moor nar leen a faagaagal fii la ñuy ñëw làqu si kon fii dëkku rawukaay la waaw te tamit aussi li wax noonu maanaam du ma ci sañ xuus waaye sañ naa la cee jox ay exemple dëkk mi fasu xare mosu fee dugg waaw fasu xare masta dugg jaxaw am na stratégie militaire nag ndox yàlla yàlla bay sa tool am na stratégie militaire boo xam ne def nañ ko fi ba doo mën a dugg fii te jaaroo ci kaw ay corps waaye am na beneen stratégie mystique bu fi nekk aussi boo xam ne loolu tamit daf ciy bokk. loolu loo ko mën expliquer ak mbett mi fi amoon. no mbett mi fi amoon mënul agsi mbett mi fi amoon agsiwul cuppaan la yem waaw mbett mi agsiwul cuppaan la yem waaw. cuppaan la. cuppaan ak euh, fii mat na un yu teg daal bu njëkk matoon na ko mais léegi matatu ko xam nga kër dañuy avancé waaw mais cuppaan benn résidence la woon Linguère ko moomoon hmm. foofu la résistance bi yemoon te loolu mbirum guddi la. loolu mbirum guddi la waaw mais góor ñi newuñu fi woon mais am na ñenn ñu fi desoon te groupe bu ndaw bi fi desoon boobu ñoo téye woon peloton wu surprise u Mbinangoor bi te loolu guddi la amoon. ba tey agsiwul ci dëkk cuppaan la yem ah, euh, euh, yàlla yi dogal bisig yi dox di dox di dox ba agsiwaat ci euh, kun naan Galadio Touré tey lan nga ñu mën a wax ci góor googu. waaw Galadio Touré nit la koo xamante ne nii. li mu yor xam na ko ndax xam nga <laughs> gars yi li ñuy foog mooy ñoo euh, ñooñu cosaan bi moo leen di nëbb ba doo leen xam mais c'est un inspecteur de l'éducation et de la formation moom IEF la li ñuy wax IEF waaw moom ci loolu la retraité c'est un enseignant de formation waaye nekk na fi inspecteur dem ba nekk fi IEF waaw sunu buur bi ngay gis nii c'est un proviseur de lycée proviseur u lycée la te puis moom il a fait des études approfondies sur la géologie am na ci ay diplôme am am na ci troisième cycle même bu dee ci wàllu sport nii nii am na troisième dan euh, day former ay garde corps euh, si Njéli Diop ki nekkoon garde corps Idrissa Seck ci école buur bi la génne waaw moo ko formé mais loolu aada bi moo leen di nëbbu ba doo ba doo ko xam ci ñoom waaw mais c'est de grands pédagogues ay jàngalekat lañ. muy lu am solo kooku di euh, bisik bi nga xam ne mooy bisik Galadio incha allah suñu paree fii dinañ àgg ci moom daal di jël ci moom ay kaddu tataan ñun ñii di wax ak yéen maanaam bari na fu mu jaar ak ñun ci wàllu xam-xam bari na fu mu jaar ak ñun ci wàllu conseil bari na fu mu jaar ñun aussi euh, ci wàllu éducation kon ñu ñaan suñu borom mu woyofal yéen bi ci kawam ñaan suñu borom tey mu guddal fanam bu baax a baax ba li mu yéene askan wi yéene ko doomu aadama yi suñu borom may ko kattan gum ko yegalee muy muy suñu baay du suñu maam du lépp euh, koo xamante ni tey saa yuñ jàkkaarloo ak moom rek suñu xel dal ndax euh, lépp lu mu lay wax ci dëgg la koy teg waaye lépp lu mu lay wax ci xam-xam bu ma sëkk la koy teg kon loolu nga xam ne tey moom la maamam yi doon doon muy fit ngor ful la fayda wax dëgg te yàlla tax jëf dëgg te yàlla tax loolu rek la xam waaye it mu xamaat leneen di alxuraan mu teg ci ay programme yu am solo yoo xamante ni tey yaakaar naa dan naan guléet ci Sénégal kon ñu ngi koy ñaan suñu borom guddal fanam professeur sa kàddu gu mujj lan lay doon. waaw xanaa di leen rek euh, di leen baax seen déplacement ndax yow miin nañ la jaxaw heure bu màggal gi amee da ngay ñëw def sa couverture loolu euh, tamit aussi xam nañ aussi sa diggante ak euh, bisi aussi ak man mii ngay waxal kon loolu dañ la ci remercier bu baax ndax li ngay wone euh, d'abord jàpp nga ne siin ngay wone waaye wone woo siin kese ay valeur ngay wone ndax réew mi réewum valeur la réew mi dañ ko tabax ci ay valeur l'islam nag c'est une religion de valeur mm-hmm. ñun réew mi ñu nekk ñu tabax ko ci ay valeur moo tax fii jullit ñi fi nekk Euh, ay jullit yu dëggu lañu ndax tuubin gi moo bokkut waaw gi moo bokkut am na ñoo xam ne dañoo tuub ci lislaam ngir rawale seen bakkan loolu am na fi am na ñoo xamante ne ñoom dañoo dem ba lislaam doy leen ñu xool ko setantal ko ba mu doy leen ba mu leer na ne moo gën li ñor ñu dugg ci waaw bokkuñu ku dawee fële rek ne cerax ci biir kër gi nga xam ne moom bu amoon sago du dugg ci kër gi waaye tuub ak sago dafa am solo waaw Euh, jërëjëf jërëjëf euh, professeur incha allah kon mbokk yi euh, dañuy àgg daal di fas taataan ay kàddu ci bisik kon mbokk yi ngeen taaxirlu ñuy yegg incha allah rabbul alamin boo nee buur ne bisik moo daan ak tu dabal ak juñu amad ak dem rek ci mbeelo njare ma faxa mberi amalo besel be njaay yebi sigil aja sani wulen buro ture gaynde goorange kon saxla goori suwunaaro ture gaynde goorange yebi sig kumanda gaynde goorange amala besel be njaay e borom jakarlo yo ture gaynde goorange bayi ablay ture ye gaynde goorange gaynde gaynde bugul mum xam ngeen ne yàpp la idunde ama baxa wa na nara njila ture gaynde goorange Touré gaynde goor jangi baax boy ngot ka sirindono Touré gaynde goorange mbiram ban sabaye gaynde goorange commandant sabaye gaynde goorange ye modan Touré goori saxla modan Touré gaynde goorange yamo kor saxla ye gaynde goorange Touré gaynde goorange amadak jam rek ci mbelo njare ah. unto njeme njira ya sinta birema ngoni birema kumba njañ ma softe ne bana ma faxamberi maa ko moom Touré nit ki li mu moom nga jox ko ko toujours nga jox ma mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel euh, comme ni leen ko waxee woon tey ñu ngi fii ak euh, actuel bisik bi nga xamante ni tey moom moo nekk fii ci Sine euh, bisik ñu ngi lay siyaar maa ngi leen di delloo siyaar Seck yow moom sama doom personnel nga li ñu boole dafa bëri dafa bëri lool lool lool lool ba waxtaanee ko fii sax wax dëgg yàlla mënuñ ko jaru ko sax. lii nga xam ne mooy organe bi nga représenté aussi di Actu 24 c'est bien ça Actu 24 yooyu aussi ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que li ngeen di def nii du man kenn ngeen ko defal mais sama askan ngeen ko defal sama xeet ngeen ko defal samay doom samay sët te ak ñii ñu après nous donc pour loolu rek maa ngi leen ciy gërëm di leen ci sant bu baax a baax baax a baax bismillah Euh, jërëjëf comme ni mu ko waxee mu nekk suñu bàyyi nekk suñu lépp tey wax dëgg yàlla euh, relation yi ñu seq euh, weesu na lii ndax ñun saa suñu rangooñ suñu ràññoon bu ñëwee suñu dënd rek ci moom la ñuy delluwaat kon ñu ñaan suñu borom mu guddal fanam waaye bala maa ñëw ci fonction bisik bi damay laajte kan mooy monsieur Galadio Touré fan la jaar ci ci ci li nga xamante ni tey moom mooy ab ci wàllu njàng ak njàngale yaakaar naa am na ci histoire boobu am solo avant ñuy wax wax bi. waaw mais bisik moom lu ma donn la lu ma donn la bu du loon man tey ji mun na nekk kii sama rakk ji mun na nekk sama rakk jële donc problème mu ndono la léegi nag ci biir famille ci biir askan ñëpp yemuñ ñii fii la leen yàlla may fii ñii yàlla may leen fële kii il est professeur de médecine kii il est il financier ou quelque chose comme ça ah yàlla def nag ci njàng mi man jàngalekat laa daal jàngalekat la inspecteur inspecteur de l'enseignement dirigé nag plusieurs circonscriptions circonscription mooy genre département te ni ma la ko mën a expliquer mu leer ci bopp auditeurs yi mooy dirigé naa fi circonscription Podor c'est tout le département de Podor ça faisait douze mille kilomètres carrés école ya fa nekk yëpp maa leen dirigé woon ba ma fa dem naa Rufisque muy une poche toute petite poche nekk seulement quinze écoles élémentaires ak quelques écoles préscolaires ak quatre ou cinq lycées hmm? ba mu jógee foofu nag maa nga dem ba Bignona ci Casamance foofu aussi j'avais une circonscription étendue sur cinq mille six cent kilomètres carrés euh, département Bignona moo gën a rey dans la région de Ziguinchor donc foofa def naa fa onze ans soog dem retraite ba ma demee retraite nag bon tooguma daal comme man jàngalekat la damay dugg rek ci ci njàngale diriger ay école di créer ay ay programme scolaire et cetera ba tey jii yàlla def na sax d'ailleurs ñu bokk école maag yow du dëgg waaw waaw kon euh, mbokk yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel lii li muy wane rek mooy euh, rôle bi nga xam ni moom lay joué euh, buñ koy tànn dañuy tànn ci xam-xam dañuy tànn ci askan dañuy tànn ci lu bari kon dañuy taxaw ci bisik lan mooy bisik. lan mooy bisik. bisik daal na am na ñetti fànn yuñ ko mën a expliquer te histoire la bu ci nekk histoire la tegu am na benn boo xam ne. Eh, te man boobu laa gën a gëm d'ailleurs te laa gën a nekk à l'aise mooy temps yu royaume yu jëkk ya empire du Mali empire de Ghana empire de Gao ci temps yooyu laa la wax ah, am na ci empire yi muy l'empire de Gao boo xam ne en 1591 la tas après la bataille de Tondibi bataille bi nag boo mën naa ko expliquer très rapidement naar yi dañ joge ci kaw di ñëw di attaque si waa dëkk bi jiital ay nag pour ñu baare leen ñi lay ñëw am nañ fetel ay muske te ñi xamuñ ko donc bu leen nag yi chargé ñoom ñu fetel tiire nag yi tiit ëlbatiku topp yëg gaañi jaar ci seen kaw mamaañe leen nguur googa tas donc ñi doon attaqué si bëgg nangu nguur gi te nguur boo ko bëggee nangu dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay faagaagal toute la famille royale toute la famille royale ngay faagaagal mu am nag ñu ci rëcc effectivement rëcc di dox ñëw ba ñëw ba jenne ñëw Tombouctou di wàcc xam nga jemee Tombouctou c'est dans le Mali di wàcc di wàcc ba ni ñu duggee see Sénégal par l'autre côté du du du fleuve à à à l'est du fleuve au nord-est du fleuve ñooñu nag ñoom ñoo ñëw ba fii te seen ancêtre ba mu ngi tuddoon Mamadou Touré. kooka nag jàpp nañ ne moom moo meñ parce que le premier c'est Ahmed Zaïd mm-hmm. Ahmed Zaïd léegi ñun comme suñ langue yi mënuñoo prononcer certains son mm-hmm. ama Zaïd ça devient ama Saïd Ahmed Saïd mm-hmm. waaw boo ko décomposé en arabe tu as Ahmed ak Saïd du dëgg léegi nag mu def ko benn Ahmed Zaïd moom moo meññ nag ñoom Malayni ñoom ñoo lay ne la mu lay na. Mhm. mu na. ah kooka moo indi ay euh, seer kooka moo indi muhammadan mhm. fii ñu gàttal ko ne moo daan mhm. noonu la affaire yi lawe lawe lawe lawe ba agsi ci man nga xam nag nag man nag man bokk ma ak ñoom ci dara ci tur waaw <laughs> man may ko ñu tànn gàllaajoo ko mooy ku ñu tànn. ko. donc loolu mooy loolu mooy histoire bi tey bu ñu ñëwee ci wàllu mot bisik euh, mooy lan mot bi. waaw mot bi arabe la. Mm-hmm. arabe la daal ça veut genre premier ministre la. Mm-hmm. genre premier ministre la boo xam ne moom mooy ñëw après kilifa gi. Mm-hmm. te premier ministre boobu ni ma ko jéem a feneen mooy moo gën a jege peuple bi. mooy duggalanteeg ñoom. moo leen di recevoir mooy waxtaan ak ñoom mooy xam lii mooy xam lële donc moo gën a xam buur li xew ci réew mi loolu tax mu mat conseiller bu dee conseiller nag ci lépp la nekk conseiller ci affaire yi nga xam ne on peut dire affaire yi nga xam ne feneen la xewee ci extérieur moom moo koy traité en premier chef supposons que gan ñëw jóge ci beneen royaume ñoo ne dafay seet si buur Sine su ñëwee du dem directement ci Buur Sine ci lay dem bu demee waxtaan ak bisig fanaan fa ba bët set bisig xam na li muy wut parce que waxtaan nañ ci guddi gi boo xëyee nag dem ci buur ne gan gi nangam ma tax a jóg béréb sàngam la jóge lii ak lii ak lii lii la bëgg ak lii ak lii lii mu bëgg nii nag lii mën na am waaye lële moom mënul am yaa xam nag ni nga ko koy expliquer waaw donc loolu xam nga muy conseil conseil en affaires étrangères mais conseil aussi euh, dans les affaires intérieures parce que xam nga ku nekk sa kër dina dem ba jax war ngaa mën a xam li jaxal sa kër li ko yëngal war nga koo mën a xam te doole taxul nga xam ko waaw foog nga seetlu nit ñi foog nga déglu nit ñi foog nga xam li ñuy xalaat te loolu rôle lu bisig la woon loolu rôle lu bisig la woon mooy expliquer donc buur ne lii nii lay war a demee lii nan la war a demee et buur a ngi xelam de. waaye comme on xel du doy. voilà loolu daal mooy zik bi nag mooy ki nga xam ne daal wax dëgg yàlla sës na ci buur sës na rëkk rëkk rëkk ci buur bu guerre amee bu guerre amee moom mooy taxaw protéger buur euh, bisib yu bëri daanu nañ ci champ de bataille. champ de bataille parce que dañ doon protéger buur bi ñu àndal waaw. mu mel ni baatu bisik bi euh, am na ci fu mu commencé nekk arab euh, ci turki ci araab euh, looñ ci mën a indil. waaw loolu xam nga li ñuy wax linguistes yi xam nañ phénomène boobu seet benn baat bu jóge fële ñëw fii dafay soppeeku mais sens bi li muy signifier toujours benn lay doon mais baat bi mooy soppeeku ci prononciation yi boo seetloo yow ci jàng nga arab yow yow arab nga arab nga jàng man français la jàng mais am na ay mots yu ñuy utiliser tey par exemple bu ne cungwaar cungwaar ñëpp xam nañ ne mooy li ñuy jaqee cin mais c'est du français écumoire écumoire mais ñun ñu ñu wax ko cungwaar lu <laughs> ne kuddu buñ ne kudd visir waaw ci liñ foog mhm. mu ngi jóge ci visir mais am na ñeneen ñoo xam nag expliqué nañ nañ ko nag Mamadou Faye par exemple dafa ni bizikri la jógee. Mhm. bizikri. bizikri waaw. d' accord bizikri nga xam ne baatu zikr. d' accord am na aussi baatu wasir muy ñaar yëpp. Mhm. waaw bu fekkee zikri bi mooy maanaam euh, alquran parce que alquran dañ ko tuddee zikri te loolu tamit day day nekk loo xam ne lu xel mën a nangoo ndax ay jàngalekat alquran lan woon. exactement exactement ay jàngale alquran ba tax na bu ñu nee bizikri. mooy kiy jàng alquran kiy tari kiy ñaan kiy. waaw voilà. xizikar fu mun toll voilà. bu dee moo wazir bi day dugg ci comme ministre ki nga xam ne aussi moom moo gën a jege kon ñaar yëpp bu nekk mën naa dem. voilà ñaar yëpp sax ñoo war a ànd dem pour mu am véritablement en sens dans l' institution royale. macha allah kon bi zikri wala wazir boo ci jël rek mu jox la baatu euh, bisik euh, tey ñu ñëw ci sa ci sa ay bi nga xamante ni tey ñu ngi ñaan suñu borom mu mu mu yàggal ko lool euh, guddal fan ay wi naka la demee ak yan liggéey yi nga xamante ni tey jot nga ko jot nga koo def ak fii ñu toll nii yan naal nga bëgg a defaat. waaw fi mu nekk nii ñun ñu ngi sasu sas bi ñu ñu ko yen au mois d'août 1900 non 2014 au mois d'août 2014 ci laa jot charge bi booba ba léegi nag ñu ngi ci parce que xam nga histoire comme li ma doon wax sànq la demoon nañ ba liñ jàng feneen réeral ñu sunu tool tey ji mooy ñu dellu jéem dellu ci sunu cosaan gëstu ko xam ko ràññee ko mën ko jëfandiku avec toutes les modifications possibles allant dans le bon sens ba tax na ñu ne gis nga doomu aadama foog mu am fu mun a denc ci boppam ku amul cimetière nga xam ne boo bu bu sa bu sa kenn ci sa waaso bu génnee àddina wàcc liggéey doo ko sànni doo ko lakk comme ni indien yi def doo ko diigal ci géej da nga koy ma da koy gas ba mu xóot nga denc ko màndargal loolu loolu ku ko amul daanaka amoo dara alors ñun nag depuis comme j'ai dit ay mille six cent trente quatre peut-être sax gën naa wàcc loolu ba léegi naar yi parce que noonu la ñuy wax naar yi ñu ngi fii ci biir Siin te bokk ñoog ñoom diine donc bëgg nañ ñu am benn place boo xam ne ñu may leen ñu fay denc seeni i néew. loolu moo waral cimetière yi nga xam ne fële boo fa demee ku sant Touré rek nga fay fekk mbaa bokk yaayam sant ture ñoom rek nga fay fekk ci cimetière c'est extraordinaire ça waaw c'est extraordinaire. yaakaar naa lu xaw waral ci dëkk bi de. gisuma ko lu bari de. gisuma ko lu bari de c'est vrai que am na ay cimetière gelwaar fii ay cimetière lii fii ay cimetière la li fële mais. cimetière boo xam ne ñëpp bokk sant benn sant fii daal laa ko mos a gisee waaw. mu mel ni ci loolu def nga ci liggéey bu am solo. waaw parce que depuis quand même près de quarante ans ñu ngi jéem a tabax cimetière bi depuis près de quarante ans ñu ngi koy jéem a tabax. sun bàyyi ñoo fi nekkoon boobu jéem nañ jéem jéem jëm jéem waaye ren ji la ko yàlla sottil ren ji la ko yàlla sottil ñu jóge ca loolu aussi kii nga xam ne mooy maire dëkk bi moo doon ki jëkkoon a nekk maire dëkk bi bi defee extension may nañu benn site de mille mètres carrés pour ñu tabax fa Kër Bisik parce que fii kër fii fii mooy Kër Bisik waaye cosaan bi fii la waaye nag euh, amaat beneen kër daal moo ñu gënal waaw waaw mënuñoo toxal bagage yëpp comme <laughs> comme li xale yi wax waaye mën nañoo wax ne à partir de du vingt et unième siècle kër bisik fii la doxoo na fi dem fale ci site bu bees bi loolu nag am nañ terrain bi mais foog ñu tabax ko buñ ko tabaxee lan lañ fay def loolu lu ñuy waxtaane la est-ce que dañ fay def école est que dañ fay def lii est-ce que dañ fay def lale mais de toute façon dina am résidence d'abord nga xam ne ku falu bisik rek yaay dem dëkk foofu waaw muy muy naal bu am solo ku falu birik ku falu bisik yaay dëkk foofu waaye ku wax bisik wax njàngum alxuraan euh, tey njàngum alxuraan moomu daara ji fan la daara ji toll. fan fii nii nii. waaw nekk wax wi dëgg dëgg dëgg. bisik amu fi daara. <laughs> waaye ku la xam-xam ci xam ci yow ci wàllu pédagogique euh, alxuraan nga ci liggéey liggéeyu am solo euh, tey ci ay wi est-ce que amoo mébétu maanaam dekkilaat daara jooju. waaw loolu moom Fatick la. am naa daara sax mu nga Fatick waaye kooku sama daara maam la jóge woon Touba nekk mu xaddam yi Sëñ Touba sant jatara ma xari mu ne ko demal toogal ma fële siin waxtaanal ma ak séeréer si ñi nga mën a tuubal nga tuubal leen kooku daal di ñëw def fa daaraam te ma xari comme j'ai dit mu xaddami Sëñ Tuubaa la woon Sëñ Tuubaa ak Buur Sine Kumba Ndoofeen gis nga seen diggante donc mel na ni ñoom ñaar muy muy muy Sëñ muy Buur Sine Kumba Ndoofeen xëy na am dafa leen yàlla boole te ñun xamuñ ñun doomu aadama yi xamuñ ba jaar na ci daara jooju waaw léegi nag dem nañ ah, jamono dox na dox dox dox ba nga xam ne daara ja wax dëgg yàlla raaf na daal raaf na fi parce que dafa doon xumb foo toll dégg alxuraan ji foo tollu dégg ko foo tollu dégg ko léegi nag man ci sama xel mooy ma dekkil ko waaw ma dekkil ko ak ñi may mën a jàppale foofu sama wàllu néeg ndey la parce que Cheikhouna bisig bi aussi ñaar laa ci ñaar tànk laa ci am dama ko nekk ci néegu ndey nekk ko ci néegu bàyyi waaw <laughs> ko nekk ci néegu ndey ak néegu bàyyi yàlla yàlla na yàlla àggale mébét yooyu muy nga xam ne arxuraan delluwaat ci cosaan li nga xam ne fa la bisik tàmbalee muy ak zikr yàlla na ko suñu borom motali euh, bisik sa kàddu gu mujj ak ndénkaan gi nga xam ne moom ngay dénk famille bi ak di ko woo askan wi nga xamante ni tey ñoo topp sa gannaaw ci yooyu nga xam ne euh, yaa ngi ko bëgg a sumb liggéeyal ko askan waaye it ngir delluwaat njukkal suñu maam yooyu nga xam ne dañoo liggéey ba yegg fi waaw man nag Cheikhouna damay sant suñu borom parce que yàlla daf ma teg ci bopp famille boo xam ne c'est une famille uni dañ naan na doom topp bàyyi rakk topp mag loolu la ñuy doxal loolu la ñuy doxal ñii kii xam nga moom il est professeur de médecine xam nga moom bu njàng <laughs> waaye toujours sama gannaaw lay nekk su ma ko wax loowul du wax moom ak moroomam ak moroomam donc man yàlla may na ma wërsëg boo xam ne ñi topp ci man dañ ma déggal nangul ma ma war ci gërëm suñu borom ñoom itam ñaax leen ne leen juumuñu juumuñu foofu fi ñu teg seen tànk foofu la ma dellu si di leen ñaanal ñoom ñëpp yal na leen yàlla def mag ku nekk na ngay dem di xeeb say at di xeeb say at di xeeb say at ba doo mën a teewe ñi yal na leen yàlla defal loolu perspective yi nag wax naa ko fële muy suñ résidence bu bees bi li ma leen di ñaax mooy ñu dajale li ñu am suñ ñaar dërëm suñ ñetti dërëm taqale taqale taqale ba tabaxal fi loo xam ne ëllëg ak kenn du wax ne maa tabax kii ne maa nangam nangam ñëpp la ci seen dërëm di dem ñëpp la ci seen tànk di dem loolu daal maa ngi leen koy ñaanal parce que loolu aussi mooy suñ mujj te lii ñuy def nii ci seen fii dundalaat institution royale dundalaat cosaan man loolu laa gëm. man loolu laa gëm te ñi ma àndal yëpp ñoon lañ gëm parce que fii institution royale bi xaj na la peut-être hors la mais ñeen ñi nga xam ne ñeent ñi nga xam ne ñoo ko jiite muy Buur Sine di Jaraaf di Bisik di far ba ku nekk ci ñooñu xam nañ ne lam la ñu boot war nañ koo tette war nañ koo wa war nañ koo wàcce tette ko mm-hmm. waaw ñu ngi boot war nañu koo wàcce tette ko soog koo bàyyi mu dox sinon boo bàyyi boo bootee teg rek ci suuf mu ngi noonu mun na ja mun na wàcc day wàcc raam dem mu ngoog daal ci ñag ba lii raam ci ñag bi la jëm. Hmm? Eh, lii raam ci ñag ba la jëm te saa yu yeggee rek day daal di départ eh, kon mooy naal yi nga xamante nii moom la bisik naal ñu ñaan suñu borom mu may ko ci tawfiix ak teesir ba naal yooyu mën a àgg waaye nag eh, di ko sant bu baax a baax di ko gërëm li naan man tawassala bi waasilin wasal mooy kilifa gu mat kilifa di kilifa goo xamante ni mate na ko mi ngi koy doxe ñu ngi ñaan suñu borom mu guddal fanam ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal lislaam di ko liggéeyal alquranul karim di ko liggéeyal waa siin yàlla tas ñu ci seeni barke maam eh, bi jaay sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi dañuy ànd ak yéen daal dem ci armeel yooyu nga xamante ni tey ñi sant Touré fa lañ leen denc ngeen taaxirlu ñu yegg fa ak jàmm ak salaam ni'mal lazi mbokk yi jërë ngeen jëf comme ni leen ko waxee woon rek tey ñu ngi fii ci kër gu mujj gi nga xamante si ni subhaanahu wa taala dafa bind dund bind dee muy xalaxal mawtu wal xayaat fii mooy kër gu mujj gi nga xamante si ni tey cosaan la waaye bala ñoo ñëw ci kër gi ak cosaan li dañ leen di bàyyi ki nga xam ne moo ñu fi war a maanaam wan kër gi mu présenté wu sëñ bii mag ngi lay siyaar tur bi naka la. man maa tudd Amadou Ba Touré. jërëjëf Amadou Ba tey fan lañ nekk nii. yéen ngi seen kër maanaam barab bi bisib moom moo fi daan dëkk wala naka la demee. waaw ah, en général euh, ku gën a nekk màgg si famille bi. Mhm. temps bu buur yi. yaa doon nekk yooyu lañ doon fal comme élite comme bisik waaw gi euh, famille yëpp sa sa kaw la ñuy topp yaa yoru kaddu famille bi daal. Euh, nga xam ne mooy kër mujj gi nga xam ne fi mhm. yu bari nekk fi. Mhm. ñi nga la ñu mën a indi a barab bi de moom mën nañ ne barab euh, cimetière daal julit lañ waaw ku fi dee dañ lay julli ñaanal la a ñan lañ fi denc. ñu fi denc euh, mooy famille Touré bi ñu dañ fi denc ci maam ñi ba ci euh, sët waaw maanaam daal sa so boo gaañoo fi la leen suul sa soxna boo gaañoo fi la leen suul mu mel ni barab bi ràppoon na euh, waaye bisik am liggéey bu am solo bu ci def mooy barab liggéey bi nan la liggéey bi demee woon ak euh, nan lañ ko toppatoo boobu euh, histoire bu gudd la parce que man fàttaliku naa may doon xale boobu dañ doon cotiser jigéen mi cinq cent góor mille francs def nañ ko fa ay génération ay génération mais ah, kii wuloon daal sotti wuloon yàlla def nag ci ci pouvoir euh, Bessic Papa Galaaju ci la euh, sotee daal waaw. moo te li mu yàgg ko naal ak yeneen i naal waaye ñu mel ni barab bi fekk nañ fi ay garab yu xaw a wuute euh, garab bi ban façon garab la ak maanaam cosaan yi nga xam ne moo fi amoon ci garab yi. Ah, garab bi nag man dama judd fekk ko fi may ngi gis xamal lañ koy wax parce que ma déggu olof bu baax waaw ngi gis waaw man man man daal dama ràññee daal fekk ko fi. Mm-hmm. am na ci yeneen garab lu mel ni euh, garabu guy gi ak euh, garabu ron gi euh, cosaan li. ron bi tam même chose ron bi xam naa moom war na def ay un siècle mbaa lu ko ëpp waaw loolu fekk man tam dama mag rek gis ko nii moo guy bi yëpp. Bisik ñu ngi lay siyaar lu bari tey ñu nekk ci barab bi nga xamante nii ab naan la woon bu nekkoon ci soxol xol ba yàlla mottali ko tey ñu ngi fii ci Djilassène ci barab yi nga xamante ni mooy barab yi mujj di kër gi mujj yàlla na yeex eh, lañ ngeen ci mën a indi ci cosaanu barab bi. ah cosaanu barab bi de ñi fi tëdd tey ji lii moo leen gën a loon bugg ñoo disparaître complètement kenn du leen xamati nit day am cosaan léegi nag ñi tëdd ñun ñi bokk ci ñoom suñ cosaan mënuñoo réer parce que bu suñ cosaan naree réer rek ñu dellu si fii gis ne commandant ngi tëdd fii cheikh a ngi tëdd fii. keneen a nga tëdd fële te ku nekk fa nga tëdd am nga histoire loolu dina tax te ku nekk ci ñun véritablement nga garder sa histoire yi famille te loolu moo am solo ci àddina loolu moo am solo nit du fàtte boppam waaw boo fàtte sa bopp rek mun am yàlla fàtte la sax encore que mu ngi noonu daal ah. waaye bu ñu waxee bisik wax euh, koo xamante ni dafa sës ci buur te ñu gis ni buur ñoom it amoon nañ ay ay ay barab yu ñu doon denc lan moo waral defuñu ko woon benn ñu ñëw ba fii ñu fàkk fi di def di fi waaw loolu nag bu ñu remonté histoire bi xam nga ne nañ naar yi mooy mooy bisig yee wotor la naa la arab yi lañ jógee ñi ne Fuuta lañ jógee c'est la même chose donc ay place islaam lañ jógee ñëw nekk fii ci biir ceddo yi mënuñoo bokk ak ñoom cimetière ñu ne comme nii la demee jox leen ñu benn place boo xam ne ñun fan la ñuy ci suñu waaye làqu yi loolu waral cimetière bi fii mais nag li li li li spécificité cimetière bi booy seetlu Touré rek moo fi tëdd sant Touré rek moo fi tudd boo santul Touré ak neneen noo mën di sant euh, soit sa yaay Touré la sant mbaa sa jëkkër évidemment sant Touré yóbbaale la waaw loolu mooy spécificité place maanaam ngir maanaam respecter norme islam yi moo taxoon ñu ñëw fii doon fi denc comme ni ko l'islam bëggee kon mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ñuy bàyyi xel muy lu am solo loo xamante ni maam yi ba tey ñu ngi ko doon bàyyi xel muy lépp ci di lislaam lañ koy teg waaye lépp ci xam-xam ak ngor waaye bisik ñu gis fi ay garab yoo xamante ni garab yu xaw a fasanteku la comme ngi gis ki ak yeneen i garab lan ngañ ci mën indil. waa ngi gis moom xam nga ngi gis xañ ci lay defar buum corde ki lañ koy defaree ngi gis donc kër gu nekk ngi gis waru koo sëri bu nawul ci biir kër gi. sax duy nekk ci biir kër mais toujours ci gannaaw kër lay nekk fii par hasard mu ngi ci biir cimetière yi teewul ñu garder ko noonu duñ ko daaneel duñ ko def dara bon quant yeneen ñaari garab yi ron gi ak guy gi ak daqaar gi daanu loolu fi lañ ko fekk xaw ma depuis lañ fi nekk lañ ko fekk mag ñi nag respecté leen te loolu dafay mel ni buñ delloo ci environnement garab yi la wër ak yooyu waroo leen a daaneel xañ na sax da leen war a protéger gis nga ce geste de protection là bi nga am à l'endroit de l'arbre moom la ñuy traduire par ñaan ñi dañ na a ah, xoolal mu ngay jaamu garab fekk du loolu yow yaa koy protéger waaw loolu la tekki waaw garab gaa ngi fi c'est que xam amal na la njëriñ parce que gis nga roon gi nii boo ko daanelee mun mu daggate ko mun nga am ay xer defar ci sa néeg xob yi mun nga koo xadd sa néeg doom yi mun nañ koo lakk xale yi lekk dégg nga te guy moom xam nga guy moom ñëpp wóor na ñëpp xam nañ ne guy dafa am njëriñ loolu la Dakar exactement la même chose waaw donc mag ñi dinañ ci doon ñëw di kii ak yooyu ba finalement da ngay foog sax ne dañuy ñëw di def ay xërëm di jaamu ak yooyu te peut-être te peut-être et c'est sûrement ça sax d'ailleurs ñoom dañ doon protéger rek seen environnement garab yi nga xam ne ñu ngi ci seen environnement la preuve est là mënoon nañoo daane garab yi mais kenn daanewu ko benn ngi nii beneen a nga a nga kenn daanewu ko voilà noonu la daal Cheikh na euh, jërëjëf mbokk yi kon euh, li am solo rek mooy ñu delluwaat ci suñu cosaan ndax lépp lu ñu soxla suñu maam yi jàngal nañu ko lépp lu ñu soxla suñu maam yi eh, jëfal nañu ko kon mbokk yi fii rek la ñuy eh, daal di wàcce kaddu yi daal di dem ñaanal way dawli yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk fii ci seen eh, télévision euh, Actu 24. ومن آباه بريده سا حسرتنا ونداه